dëgg la taxaw ñaari at di liggéey métti na. dëgg la dëgg la investir ñaari at métti na. dëgg la waaye seet leen ci président Macky Sall. waaw ngeen xam ne élection yi ñetti weer moo ci des. dëgg la ñu xuloo taluñu xeex. dëgg la suñu doole nañ ko boole. dëgg la. jàkkaarloog opposition bi. waaw waaw ndax yàlla may ñu suñu sago. am na loo xamante ne sax bëgg ma ko woon waaye fa ma yegg ci. maa ngi dégg ci naan du ñu seeyal suñu commission du ñu seeyal suñu lii du ñu seeyal suñu laa waaye nañ delloo xel yi. te xam ne nit soo xalaatee dee. lépp mën nga ko bàyyi. na kon nag maa ngi leen koy ñaan une fois de plus. c' est pas parce que da ngeen ñàkk fayda. ko rëcc ëllëg. ndax lépp lu waaye defal président Macky Sall. doo la fay te moom it am na bët mu ngi xool. kon yow mii dina nga yaa ngi xool